pêche également ci manquement yooyu mm-hmm. lii di bël bu euh, Saint-Louis wax nañ fa également ci wàllu surfacturation euh, ci koppar bu takkoo takkoo tey euh, ci wàllu woowu ñu génne war rapport yow itam noo ko jàngatee par rapport ak li nga xamante ne ñu ngi ciy gis naam neewuñu ne nag ñoom ñoo def parce que kuñ ci tudd itam di loolu dañuy limité wu ci li nga xamante ne peut-être moom mooy les faits en attendant recommandation yi peut-être ñu jëfee jëfee ko te ñu ko war a jëfee ñu xam ne ne peut-être justice la Euh, man damay d'accord si li nga xamante ne mooy ñu leeral dëkk bi yu baree bëri yoo xamante ne dafa war a leer xam nga bu dul dara sax au nom de la transparence mm-hmm. et puis réew aussi bu ñu xoolee te waxante dëgg rek xam nga euh, ñu bëree bëri dañu leen ni joxoon li nga xamante ne mooy dañu leen a wegoon joxoon leen cër joxoon leen fi ay ndombal baat que dëgg la que ñu war a def li nga xamante ne mooy rapport Cour des comptes bi ñu saytu ko xool kenn ku ne la nga laale ak la nga si amee ñu càmbar ko man je suis entièrement d'accord sur mais ce dont je ne suis pas d'accord mooy que ñu transformé ko au lieu que ñu def ko li nga xam ne mooy rapport Cour des comptes ñu def ko rapport règlement de compte rapport règlement de compte nag bu ko nekkee rek cela veut dire que xam nga ku ma am ndey ak ku ma amul ndey dañ koy bëgg a def mooy ñii dañ fay nekk léegi dañ fay nekkoon na Macky Sall bu nekkoon seen kilifa léegi Macky Sall moom moo leen uufoon léegi Macky Sall nekkatuñ fi léegi ñun foog ñu wan leen ne leen léegi léegi seen waajur ngeen dem na léegi il faut que ñu faagaagal leen ni ko Ndeye Fatou waxee c'est-à-dire bu nekkee loolu la. loolu de ce sera la justice des vainqueurs. merci je suis pas d'accord sur ça. et c'est l'occasion pour que Ndeye Fatou. Mm. génération jamono bii nii nii lu leerul ci jamono bii gouvernement Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Faye lu ci leerul dootul leeral ci àdduna. parce que dañoo am ñetti baat yoo xam ne dafa war a leer mooy jubbanti mooy dañoo am yaakaar ne ñoom ñooy ñëw pour andi rupture ñoom ñooy ñëw pour lépp leer loolu ndaw ñu bëri jox leen gëdd jox leen gëm-gëm bu dara leerul dara dootul leer comme dafa dafa amul koo xam moo toog ñëpp dégg mu ne yenn dossier maa si teg suma conc ba ñëpp jàpp ne moo tax dara leerul waaye léegi conc boobu ak borom conc ba ñëpp fa jógee il faut que lépp leer c'est l'occasion ou jamais Sénégal am na chance lépp leer et puis est-ce xam nga ne li nga xamante ne mooy rapport yooyu ñuy wax bu fekkee ne je suis dans le conditionnel bu fekkee ne am na ñoo xamante ne dañoo jël alalu askan bi ñu lekk ko mais buñ ko dellu si xam lu mën a apporter si réew mi économie mais mën na jooyanti bay bi mën na jooyanti li nga xamante mooy économie réew mi wàññi si dund gi wàññi si ceeb bi andi li xaalis bi pour ñu gën a soqalu ko andi ré yëkkatuwaat réew mi économie réew mi yéegaat kon ku jël alalu mi illégalement te ko jëlee baaxul nañu fexe topp ko ba mbaax na doone benn mu ko waaye réew mi nag dara defee léeragul xam nga lan moo fi leer mhm. bu ñu waxee dëgg rek depuis deux ans xam nga lan moo fi leer mooy Ousmane Sonko kase moo leer na ne moom dem na salon li nga xamante mooy Sweet Beauté amul leneen lu fi leer leneen léegi li fi leer du kase la gis nga man bu ma bu ma tëddee suma bàmmeel damaa bëgg lépp di leer ma ne man la wax man nag yàlla laa ko seede lenn moo fi leer mooy Ousmane Sonko xam nañ moom dem na salon Sweet Beauté la ñuy taqal si maam may ñaan product bi nga wax kadeer kenn xamul lañuy ñuy taqal maamu jàll kenn xamul la aji saa taqal Ousmane sungu kenn xamul bëgg démb et puis li gën a grave mooy léegi sax ñi ngi yàq doomu aadama yi lan moo boole Thérèse fay ak Cheikh Bara Thérèse Faye dafa dafa am ay ay doom am njaboot looy wax si nit na lay leer ma ne lenn moo leer mooy Ousmane sungu jóge na këram dem na Sweet Beauté. très bien leneen lu la wax lu leneen lu la wax leerul. waaw léegi nag. Mhm. comme léegi ndey ndeysaan comme léegi ñoom dañoo waxoon ne. bu ñu si dossier yi bu ñu jëwee dossier bi Ousmane Sonko bu ñu téewee réew mi bu ñu téewee nguur gi lépp dina leer billaahi bu dara leerul comme sama mbub mi ni mu leer ni mu weexee dara dootu leer. très bien peut-être dina leer affaire euh, Prodac bi parce que ñu ngi koy euh, tuddaat ci li nga xamante ne moom moo jëm euh, ci rapport au cours des comptes Omar euh, Talla euh, par rapport ak euh, cette question également je pense que ne ne euh, gis nga rapport yi nga xamante ne génnaat na bari na lool nag am na ñu ñu ci euh, tudd ci wàllu woowu yow itam noo ko jàngatee vu que ne ne fi mu toll nii bari na lool ñu teg ko sur la table du président de la République comme ni mu ko sàkkoo woon. waaw <clears throat> d'abord. pour man damaa soxla sax dem salon de massage massé parce que démb yoonu Louga bi dafa metti je crois que ku am bu baax dama ko wax ma dem parce que pour ma <laughs> dem sama massage c'est pas c'est pas c'est pas donc euh, moi je parle des affaires du Sénégal je parle pas d'affaires de personne euh, je peux dire que en toute euh, modestie ah mën nañu wax ci lu ñu xalaat ci li ma gëm man kenn mënu fi toog ne dëkk bi sàcc gi bëriwu fi bamba du maa geew de. dëgg du maa geew. waaw bàyyi ma sama xalaat jàpp si rek. dama la ko dañ si dugal ay kii rek. waaw dama la ko ñaan. waaw dañ si dugal yu sew rek. waaw mais bu bu sàcc amee nga wax ko mu leer. d'accord bamba bàyyi ko mu. <laughs> dugalal yu sew. waaw dugal naa bu sew. doole. wala doole demal demal ba ma yéegaat. demal ba ma yéegaat non bu doyul nga doole rek. non bamba bàyyi ko mu continué d'accord très simple. merci. par principe. dafa am ay principe yoo xam ni. bu fekkee dañu nekk ci réew. dañu koy gëm. muy bonne gouvernance transparence ak redevabilité redevabilité c'est pas la gestion de de fonds privés ou personnel xam nga sa xaalis bi nga yore yow fi nga koy duggal man ñemewuma la koo laaj mais li nga xam ne dañ la ko dénk ku bañ ñu cité la ci alalu mbooloo bu ko laal boo laalee alalu mbooloo dinañ la laaj li nga am liñ la dénk foo ko duggal noo fa duggalee noo ko fa jaare parce que réew dafa am ay aussi on n'a pas le code des marchés publics pour rien on n'a pas euh, règlement yi jëm ci wàllu transparence ak bon gouvernance pour rien Macky Sall bi fi ñëw qu'est-ce qu'il nous a dit gouvernance sobre et vertueuse ku boot xaj mbaw la ku boot bukki xaj mbaw la tooguñu fii ñu ne képp kuy gérer un milliard da nga war a dem def sa déclaration de patrimoine li ëpp ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon def ñoo yoroon structure wala ñu yore ministère yi gère plus d'un milliard ñi si ëpp demuñu déposer seen seen seen déclaration de patrimoine loolu mooy première violation de la loi c'est important que tu as parfaitement raison Bamba il faut pas que ça soit justice des vainqueurs mm. comme l'avait fait Macky en amenant la CREI pour créer benn nit on a tous compris que c'était une traque à une candidature ou à une personne on ne voudrait pas que ça soit personnifié ou personnalisé mais par contre par principe que ñi fi nekk tey suba gannaaw subaa fi am ñi fi toog tey. réduction des comptes. mais non ñi fi toog tey. suba dinañ fi jógee bu ñu fi jógee ñu laaj leen yow bi ñu la dénkee lii nangam ak sangam. noonu la réew di fonctionner. Mhm. est-ce que dañu war a nekk ci impunité ak irresponsabilité. wala bu subaa ku mu neex ñu dénk la nga ne France ay milliards toog ci te du mujj fenn. Mhm. il faut ne ñu xam ñu lan lañ bëgg exactement jomaay nee na bale la indi man maa ko si dooleel suy bale cuuraay fel matt ak mbóot na yëpp génn xam nga da ngay suy ba pare bale pëndax bi yëpp génn. na moytu bale waa étankam de. waaw bu bu ko neexee na bale boppam mais en tout cas pour des questions de transparence moi le citoyen sénégalais c'est une exigence. que nous savons comment on a géré nos fonds. Par exemple, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion man dañ maa waroon jox 500 euros ba joxuñu ma ko ñaata nit lañ amel seen bas te joxuñu leen ko xaalis boobu fan la dugg est léegi Cour des comptes li mu génnee liggéey ko man liggéeyuma Cour des comptes mais à la Cour des am na